mi internet yu Dakar Buzz TV daleen ak jàmm ci xabaar yi ci tënk bokk na ci nag li gën fësa ami Amy Ndiaye ñii bi may indi ay leeral ci rek ëmbam gi nag bokk na ci itam révélation ya mu def moom Pape Ndiaye bu rekk wal fu waaye itam yeneen révélation ci lu ñeel Sidy Diop ak staffam dara du leen ci ëmp tàggat yaram mooy buur suñu jotaay taxirul leen tuuti mbokk yi bàkk ba jip ma dal di koy faxam fàcc mbokk yi ak digital store coono wàcc na leen jaaxle jeex na digital store indi tina gamme smartphone ak tablette Android yu bees tax dëgër këcc di ay téléphone yoo xamante ni entreprise bii di Koskol daf leen defar ba noppi garanti leen juróomi at ak batterie yu dëgër yu nangoo yàgg lool te wér jënd leen gaaw seen gamme téléphone M5 wala X5 wala T5 wala s juróomi at lañ leen garanti looloo ngi doog am nag ci téléphone mobile entreprise bii di Crosscall ñu ràññeeku ci liggéeyum télécom moo def li ni mel gaamu téléphone yi M5 X5 T5 ak S4 di ay téléphones yu bees ndox du leen yàq choc du leen yàq dara du leen yàq mën ngeen a dem ak moom fu leen neex moo xam bureau la walla géej wala sax ngay sàmmi wala ngay dem tool wala ngay sport wala ngay liggéey ci chantier dara du leen yàq daw leen gaaw ci sunu boutique showroom bi nekk ci avenue Bourguiba wala ngeen woote ci numéro bi 33 825 73 00 wala Soumbédioune sur la corniche ci numéro bi 33 823 77 87 digital store améliorez votre quotidien internet yu Dakar Buzz TV bu ñu leen nuyuwaatee ñaareel yoon suñuy xabaar yi ci tënk dañ koy door rek ki nga xamante moo di député bu Kaffrine bi lee di Amy Ndiaye ñii jamono ji nag tane na bu baax a baax sekkoon sax waxtaan ak suñuy nattaango di leen xamal ne tey jile la gën a féddali kóllëreem ak njiitu réew mi président Macky Sall tey jëlee la gën a mën a taxaw ca pencum ndawi réew mi nag daal di koy jëlal par rëccuwul benn yoon li nga xamante ne nag moo jotoon xew ci digganteem ak ñaari député pur yi la di Massata Samb ak Mamadou Niang ci xamante ne sax ñu bëri ñu nga ca doon àddunaantu dëgg dëggalu ko waaye itam weddiwu ko moom député bu Kaffrine bi la di Amy Ndiaye Gniby waaye nag ñàmmawu ca na daal nag vie privée la nañ ko daal di respecté di kàddu yi nga xamante ni moom la daal di yëkkat ci ginnaaw waxtaan ba yu métti métti lañ doon liggéey ak ñoom mu leen di jox mille francs wala keneen ku bokk ci staff ba daal dina génn dëgg dëggal li ni mel mu ngi xamle nag Sidi mi amul benn kóllëre ci xale yi nga xamante ne nag ñooy ànd ak moom di ko guddil di ko bëccëgal waaye itam def lu ne ngir mu daal di yegg ca kaw Sidi mi fayal appartement ay xale yu jigéen moo ko gënal nag mu fay normalement ñi nga xamante ne nag ñooy ànd ak moom ngir nag di ko dimbali ci lu ne noonu la ko xamle moom mi la nag bokkoon ci staff bu Sidi Diop féer seluloo turam waaye mu ngi xam ne daal yàgg naa ak liggéey ak moom ba noppi sax doon ko xelal ngir nag mu daal di gën a bàyyi xel xale yi nga xamante ne ñoo koy guddil di ko bëccëgal ci fàttali ci nag tournée internationale bi nga xamante ne moom artiste bi la mu nga ko doon def ca diwaanu Europe bëri lool ñi nga xamante ne nag ñoo ca mujj daal di daw ci la nag kooku la daal di génn def yële révélation bokkoon ci staffam moom di Diop No Face depuis Paris mu ngay nag dànkaafu ñi yëkkati ay kàddu yu ñaaw nag di ko teg ci digganteem ak soxnaam sa woon di mu yaa gisee mu nga naan leen nag ëllëg xamuñu lan nga xamante ne nag moo war a xew nañu ko daal di moom noo fees miya ànd ak doomam ci bàmmeelam di ko nag fëggasal te koy nag ñaanal yàlla xare ko aljina waaye moom itam mën na def noonu le kon nag lépp loo xamante ne mu ngi am jamono ji nañu ko rafetal te ciy sóoraale ëllëg Karim Xurum Xaq ci vidéo mu doon xamle ni nag du signé condition ya ko tegal ngir nag mu am liberté provisoire ci wet ga nag Cheikh Omar Diagne moom nag daal dina signé ci loolu Clédor Sène ngay xam ne nag Abdou Karim Gueye dafa yàgg nekk nit koo xamante ne nag dafa bëri principe waaye nag liberté liberté rek la ndax ñu bari nag jamono ji ñu ngi nag ci liberté provisoire terewul benn yoon ñu ngi continuer di nekk ci seen ay activité kon nag nañu daal di focus sur l'essentiel li des bareetul ay weer kese képp dong la jamono ji noonu la ko daal di xamle bu loolu weesoo moom yi itam dal nay àddu ci liberté rek provisoire bu Pape Alé Niang dañu ko nag génne ngir rek bañ mu waxati loolu la ko daal di xamle waaye Pape Alé a ne dootuñu waxati ay avocat ñu ngi nag liggéey ba nga xamante ne nag dinañ mën a alléger bu baax a baax condition liberté provisoire am moom Papa Alé Niang ngir nag mu daal di liggéey comme ni ñu ko xamee ndax nag moom mi la taskatu xabaar la kon nag mënuñ ko toog di ko noppiloo du yomb la ko xamal moom Clédor Sène taskatu xabaar ba nga xamante ne moom la sekkoon ak moom ma waxtaan Pape Ndiaye bu Walf mu ngi xam ne nag donte doyen des juges ci boppam xamagul sax ndax dossier bu Sweet Beauté dañu koy yóbbu procès am am déet nguur gi nag ñoom taxaw nañu temm ngir nag lijjanti seen ay rek procureur waaye itam daal di rek lijjanti ñoo xamante ne jamono ji ñoo yóbbu mbir yo ngir rek mu daal di yegg procès daal dinañuy nag lijjanti lu toll ci ñetti juge ak benn procureur boo xamante ne nag ñoo mën a daal di gérer mbir yi nga xamante ne nag bu ñu ca yeggee lépp dina yemb maanaam ci lu ñel nag dossier bu suite botti teg nañ ci pression ki nga xamante ni moo di doyen de juges donte sax moom mi la xamagul ndax day classé boobu le dossier wala nag daf koy def non lieu lum ci mënti doon ñoom nguurug Sénégal pare nañu ba noppi du samay kàddu Pape Ndiaye bu Walf moo ko daal di wax mënoon na nag joxe tur ñi nga xamante ne ñoom nañu rek daal di rek préparé ba noppi ngir ñeel nag procès boobule waaye nag du ko def pour des raisons de sécurité moo waral nag mu daal di rek def li ni mel waaye nag lépp moom mi la am na ci lu ko leer te fu nag leer la ko daal di tekk mi moo sàkk woon ci njiitu réew mi président Macky Sall mu daal di nag publier nag xool ñi nga xamante ne daal ñoo rek luubal seen ay koppar ngir daal leen toppandi ci yoon ci lu ñeel boobu lay coow nga xamante ne sax bëri na ñoo xamante ne nag seen tur ngi ci biir FMI nga xamante ne nag du bàyyi mbir yi mu sedd dana leen toppandi fa mbaxana doone benn ngir nag di daal di indi ay leeral ci boobu la mbir ci fàttali boobu la dossier sax waraloon ñi nga xamante ne nag ñoo di société civile bi janoo woon ak nga xamante ne moo di premier ministre Amadou Ba ngir ñu nag sanctionné képp koo xamante ne nag tàqe nga ci boobu la mbir daar daar la mu leen xamal moom Mamadou Ba dina nag dossier boobu lee tàbbi na ci loxo ministre de la justice te lépp loo xamante ne nag war na ko ca dana ko ca daal di def ginnaaw accident ba amoon ci diwaanu Kaffrine waral lu ëpp ci ñeent fukki doomi aadama daal di ñàkk seen bakkan taxoon sax ñu daal di décréter trois jours de deuil national ay dogal nag mujj nañ ci wàcc nguuru ko Sénégal daal day nag jël ay mesures ci lu ñeel transport bi di xam ne nag li nga xamante ni itam moo di pneu importé yi dootuñu duggati fii ci diwaanu Sénégal waaye itam horaire yi dañu dem ak dikk ci loolu ñoom transporteurs yi ak ñi nga xamante ni daal ñoo di jaaykatu pneu yi ñu ngay ñaawlu bu baax a baax dogal yi nga xamante ni nag moom la ñu daal di wàcce te xam ne daal laataa ñuy jël nag benn dogal soxla woon nañu nag ñu daal di waxtaan ak ñoom ci seen biir bateau Onda ji bateau ba ñu nag abandonné ci large bi fii ci di diwaanu Ndakaaru marine marchande bi moo leen nag daal di beddi bàyyi leen ci ndox mi équipage ba ba léegi nag ñu ngi ci biir bateau bi lu toll nag ci rek lu ëpp nag transporté ay noix de cajou ci diwaanu Afrique capitaine bi di ab Syrien la waral nag ñu toog ba léegi ci rek ndox mi bokk na ci li nga xamante ne toog nañ ay weer kenn fayu leen bato bi ba tey bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango ñu ngi xamal nag fa mu taxaw baaxul ndax nag amul signal wala leen loo xamante ne nag boo ko jubee dinga xam ne lii bato bu guddi jotee waral nag ñuy sàkku ci nguuru Sénégal mu daal di cay jël ay dogal Benjamin a été reconnu non coupable ci nag six viols yi nga xamante ne nag ñu ngi ko doon toppee waral nag mu doon histoire boo xamante ne daal ne tagga témbeem bu baax a baax li nga xamante ne daal moo di carrière am waaye nag indi njeexital ci dundam lu ñeel septième viol bi nag jamono ji kenn waxagu ko dara enquête ba ñu ngi koy wéyandi day xaarandi nag lan moo ci rusandi ci boobule mbir bu ñu sukkandikoo ba tey six viol yooyee ab histoire de vengeance la boo xamante ne nag ay xale yu jigéen ñoo ko daal di complété ngir rek jéem a xool naka la ñu koy yàqale moom Benjamin ci loolu Bira Sène di président Balde dafa war a ak Gris ba noppi laata muy bëri ak keneen mu doonoon lëndëm lëndëm ci bopp amateur yi ginnaaw bi nga xam ne nag Modou Lo daal na doon sax déposé ab certificat de guérison wala loon ku ci nekk sax di laajte Ama Balde mi dafa fay mu jekk bëri ak moom wala nag day xaarandi di blessé ci loolu ki nga xamante moo di Bira Sène nekk président bu CNG daal na ci indi ay leeral te xam ne nag Ama mi la dana janoo ko Gris ba noppi laata muy xaar xaarandi leneen lu ñeel itam li nga xamante ni moo di rek Boy Niang ak Modou Lo ki nga xamante ni itam moo di rek coach am moom Boy Niang mu nga xam ne nag bëgguñu lëndëm lëndëm wala lépp loo xamante ne gàkk-gàkk la ci biir Pikine waral nag boobule ba duñ ca daal di sóobu ay jamono ñu ko doon nag laam-laamee ndax Boy Niang mi mbër mu mag la am déet doon xam leen sax ne daal yeegagul cours des grands waaye nag lu mu ci mënti doon ginnaaw nag ndam la mu am ci kaw Balla Gaye numéro 2 lépp di nay leer ginnaaw ba ñu ko invité woon ci appel live moom Modou loo mu nga doon sax xam leen ni daal euh, jamono ji pare na nag ngir janoo ko rek benn mbër boo xamante ne jamono ji daal dinay disponible ak lu mu ci doon mooy ne nag promoteurs yi ak amateurs yi ñoom rek la ñuy daal di déglu ngir rek xool kan lay am comme adversaire moom Modou xarañ na loo am internaute yu Dakar a TV li la leen indiloon ci sa seen acte du jour di leen wax bu leen fàtte benn yoon abonné wu ci suñu page YouTube di Dakar Buzz TV Avec Digital Store, vous allez enfin réaliser vos rêves grâce à la toute nouvelle gamme de smartphones et téléphones Android dernier cri de l'entreprise Crosscall. Vous n'allez pas nous croire, c'est la première fois dans l'histoire de la téléphonie mobile qu'un constructeur de télécom met sur le marché digital des appareils téléphoniques garantis 5 ans. C'est le M5, le x le T5 et le S4. Les produits Crosscall sont d'une solidité et d'une garantie que vous ne puisque prouvé aux normes militaires et doté d'une autonomie largement suffisante avec alarme en cas de danger. Les seuls appareils avec anti-choc. Ils sont étanches dans l'eau, du jamais vu. Les appareils Crosscall vous accompagnent dans toutes vos activités professionnelles, au bureau comme en dehors du bureau, pendant votre sport ou pendant les travaux champêtres, les chantiers ou en mer et partout. Contactez-nous au plus vite dans nos boutiques showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 ou à Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87. Digital Store, améliorez votre quotidien.